yu mag itam euh, ci Tëngéej ni ki noonu euh, Medina Gële euh, waaye yàqu-yàqu yi gën a metti ni ko fàttalee keroog ci port bu Ndakaaru la amoon réew Rewmi FM itam jagleeloon leen ci xaaj bu rëy ci ab focus boo xam ni dellusiwaat nañu ci xew-xew boobu ñu nag war a waxtaan wi keroog ñu yemoon ci nag tey ndax démb ak tey la ñu wax tey nag ñu doon waxtaan ci kon lii di tolluwaay réew mi ci wàllu politique méngale surtout politique démb ak Euh, gu tey ak fi ñu tollu tey ci ci actualité euh, bàyyante geek euh, wax yi nuy faral di ci dégg ak yu ci aju kon ñu ànd déglu suñu maam Ousmane Sène Blay wéyal waxtaan wi ñu tàmbali woon keroog nara nag jeexal ci njeexital yi nga xam ni justement bombardement bu Dakar boobu amoon na ko surtout ci français yi muy De ak ñoñam yi nga xam ne ñoom la doon jàmmar lool. ku nekk sa war dàq na la. du ci am ñëpp mosoo génn mukk wax wax dara si état bi. xanaa Dia bu nekk cinquante président conseil nekk sénateur nekk député français am na lu mu xam. waaw yow ab ab ab Ablaye ab Macky Sall jël la wala Ablaye Wade def la premier ministre wala mu def la ministre d'état nga xëy ngeen xuloo loo xamoon si lu bon si état di ko wax loolu mooy différence bi. mos nga dégg wala jooju waxtaan lu ñaaw Ibrahima Sarr ñooñu ànd ànd bi ñu àndoon. xool mbay mbay ñang am na ku ñuy met mbay ñang xaali Cheikh Anta Diop laa dul ñu tàggu tàggu bu doy waar en tout cas mosoo dégg kenn wax sama lu ndax lu ñaaw njugu wag ba duñ ko def les amis de Dia bi Dia daanoo kenn déggu suñu baax parce que booba di lu am nawle. ànd nawle lan am. ànd nawle ak ànd suurante. yàlla boo bëgg a sutura wante xëyit ànd ak mu def lu nekk lu nekk jaar seen diggante nga xëy rek parce que génn na la rek te politique moom mel noonu Victor Victor moo wax léegi dafa ne il fallait mettre un E entre parlement Victor nga ko wax nag il mettre e, entre parlement politique transhumance kooku moo am politique moom ko Malayaaka moom Dogol bu mu wootee l'appel du 18 juin 1940 kay njëkk wu si mooy Jacques Cousteau le premier tàggoowul Georges Pompidou mai 68 ba Dogol demee bëgën bëjël fekk fa ko dox Bijard général c'est le dernier chef d'état-major général de l'AOF ici en mu ne ko la France brûle si j'ai le soutien de l'armée je reste si j'ai pas le soutien de ma dem sama yoon Bizarre de ko si tu me la nuit à Paris je passe ce soir la nuit à Paris mu dem Colombey des églises déclaration dix-huit assemblée nationale je suis pour non je chef de la majorité ñu ñu ñu ñu def élection mu nekk raz de la France euh, dugal ko quatre-vingt pour cent de l'Assemblée nationale peuple doon premier ministre mu dàq ko def kiwute mur wil colonel Madior Diouf ak Diallo Diop dañuy tàggoo di nga ko gëm colonel la woon Abdoulaye Wade ak euh, Idrissa dañuy tàggoo di ko gëm politique yi tey bi te boo boo boo nekkul chef de parti nekk président République ki la soo par xëy bàyyi la sa sa sa du la présenté te àndi politique sa ànd ak tàggoo la waaw des problèmes de détail nag parti président président président de parti c'est le problème de détail problème de l'opposition c'est un problème de détail la démocratie française allemande c'est pas c'est pas une démocratie sénégalaise na gars yi xam loolu te am les pieds sur terre. kon daal jarul coow li yëpp jarul coow li yëpp. mënuma nag wax ba jeex te àgguma si kaay Lamine Diack ànd naa ak moom soixante dix moom Lamine Diack waaw waaw soixante dix laa ànd ak moom xëy sax bala ngay dem léegi dinga dégg mu woo ma moom Lamine waaw sama xarit la bu nu ànd bu yàgg ministre gi mu doon mi commissaire maa ko jëkk wax du euh, Senghor si audience hmm. Alioune Sène nga taxaw Alioune Sène moo doon ministre la culture directeur cabinet Senghor la woon jabaram ak jabari Lamine Diack ñoo bokk ndey ak bàyyi après 1968 on avait ce qu'on appelle l'union nationale de la jeunesse du sama recevoir ñu moo ko président doon nañ ñoom Lamine Diack moom moom Alaji Malick Souri ñoom rek ñu dëkk Rëbës ak ñaay ak Médina réussir études et sport il est inspecteur de France il est entraîneur de de de l'équipe nationale de football il est champion de France de saut en longueur dëkk dans le quartier arc de Rëbës. mu ne Alioune Sall prenez note ñu woo Serigne Lamine Diop yàlla yàlla yokk leeram tàggoo na ma moom nag ba dëgg ni may wax yow muy nit ku baax lu mu am joxe da ko toog waxte lii ko dal nag koo ko xam du la bett hmm. ah mukk mukk mukk c'est un jaag d'abord xëy nag lakkal tubaab yi Obama président lépp des États-Unis daf ko yebal jabaram en France mu ànd tout le comité olympique américain ñëw la mu ñëw ñu toog ak jabar yi ma ne ko doon bëgg nga jàppale ñu pour le jeu de Los Los Angeles mu ne ko mu ne il n'est pas jabar yow ba maa la wax de. Mhm. muy wax su turu jëkkëram ñëpp a ngi toog it. Mhm. waaw mu ne ko il n'est pas question mu ko lu tax mu ne ko yéen atlétisme dafa leen ko muy dara am na benn constellation atlétisme bu ja bu joxee rek ngeen armé ay nit yu ñëw raw dem jeex na il gàntu ko waaw le roi Juan de Carlos bu Espagne woo ko nekk doon bëgg yëf les Jeux de Barcelone mu ne ko il est seen télévision bi addis bi du si génn mukk mu dem Japon buuri Japon kenn du nuyoo kenn du ko nuyu boo amee audience hmm. donc mu kenn du joxe loxo kenn ko jege it Lamine jaa ngi mu jox ko loxo invité ko di reer mu dafa xeex tubaab yi xeex yu méttee métti weddi leen jël siège bi bi nekkoon bi nekkoon Angleterre indi ko indi ko Monaco bi may ñëw di ko jël en 1999 xaalis amatu fa te yow dégg nga ma sa jàkk doom capacité que mettre que mettre ko en jeu mm-hmm. en deux mille deux noonu coupe du monde moom la gars yi jël mm-hmm. la mu indi ba tey kenn indiitu ko mm-hmm. waaw loolu la loolu tubaab bi loolu ko meree naan euh, dafa dafa dafa politique dafa laaj xaalis dama kër la du jàkk moo kër yëpp a yem mm. moo kër yëpp a yem Lamine Diack xaalis boobu mu yore bu amoon ñu gis nga ñu ñu ñu am kër Dakar amee building Lamine Diack amul building amul dara kon ñu ñaan nag te ñu bàyyi wax gouvernement sénégalais Lamine Diack xam na gouvernement sénégalais xam na Macky Sall digale moom dara de doom mm-hmm. on est sur un homme qui tàggoo mag Abdoulaye Wade yi su dama vécu combien de fois loolu Touba ànd ak ànd ak ànd ak Madické Niang génn télévision bi Abdoulaye dàq ko mu fat mu mu fag mu kii nag mu mu si dem en quatre ans Senghor ak président en quarante huit c' est douze ans après nag président de la République Abdou 2005 waaw 1965 la directeur cabinet Senghor pendant cinq ans deux ans de ministre de plan dix ans de premier ministre soog a fa président République Abdoulaye Wade vingt six ans d' opposition dem fu nekk si soog a falu Macky Sall ñu en quatre ans falu nous sommes indépendants depuis soixante ans mais les gens wala que le pays commence à partir de soixante deux mille ku créé Yoff nag du du kii. Macky ah, waaw bu ko neexoon bañ ko créé mbënd bi ku joxe xaalis moom bu ko neexoon mën na ko bañ joxe wante ñoom dañu bëgg a critiquer du noonu Macky Sall daf fay jóg. dans vingt ans on parlera plus de Macky Sall mais on parlera du Sénégal te wóor na mu war a Macky warul kenn su ma nekkoon place am bu tolloo jëng demee. duma la Aminata Mbengue Ndiaye place Senghor politiquement laa wax mhm. du ma jël Alioune Ndoye jox ko place Aminata Mbengue Ndiaye mukk politiquement soo man duma ko def te xam naa li ma wax man mhm. le premier gouvernement Macky Sall a convoqué a créé a créé a mis sur vingt cinq ministres mhm. mu jox quatre nièces yaa ngay continuer mm-hmm. jox ñett Tanor jox ñaar Idrissa Seck mm-hmm. muy neuf mm-hmm. jox benn Ibrahima Sall muy muy muy dix muy douze jox benn Awa Marie Coll jox benn Aly Ngouille il était minoritaire ci gouvernement bi waaw ña faroon na moom sax ñëpp dafa séddale ba moom il était minoritaire ba tey it jëmu tànnoon ba tey waru si kenn la mu joxoon ñes ba tey PA gi PA yi gis bi la ma waxoon taloor ba tey Aliou Guèye yaa ngi kii ngi nii yëpp ke yàq daxul kenn warul kenn te it il faut euh, gis nga Khalifa Sall doom danga may permettre man nag xam naa sax je fais du coq à l'âne parce que sama yaram neexul sama bët neexul moo tax may wax en vrac. waaye mm. ba tey baax na ku fekkee démb moom danga koy déglu rek. Khalifa Sall ku am mandat la ku am fayda lu mu am fayda ko may wante Khalifa Sall xam na ne avec le PS ñëpp ànd ak moom kenn kenn beddeekuwul il peut gagner aucun département le PS actuellement ne peut gagner aucun département dans le Sénégal waxuma région le PS suñu parti bi ñu bokk ñun. mu ñu gañe dara. socialiste yi wax de. waaw te it li ma xam te réew mi la ko xam de. parce que j'étais conseiller culturel au ministère de la jeunesse. maison de jeunes ak foyer jeune boo dégg fii Sénégal maa ko implanté. j'ai fait le tour de Sénégal. le PS dans lui avec Khalifa Sall ne peut gagner aucun département actuellement. bi na koy sama mairie Dakar xam nga il était pas le responsable Dakar du ko dox Doudou Issa Niass moo responsable ko yàlla yërëm ñu xam ne nag saxal waa ma maire yi moo gën a yomb Doudou Issa Niass moo tax mu nekk maire ba responsable Dakar s'appelle Doudou Issa Niass mieux aux élections 2012 premier tour xam nga Macky Sall moo ko ginnaaw point e. le 19 arrondissement moo ko yële 18 yëpp xam ban position la parti socialiste amoon euh, Yoff Grand Yoff cinquième position premier Macky deuxième Abdoulaye Wade troisième Idrissa quatrième quatrième Niass euh, cinquième Tanor waa gars xëy def liste si dix premiers listes yi kenn les sept députés yi xali yi rek parti parti bi amul kenn gàkku am ñett waa ji waa waa kii ndar bi wax am ñaar waaw kenn ki am ñaar Idriss mu jeex personne représenté si ànd Khalifa à l'Assemblée nationale loolu du erreur politique parce que politique euh, doom du du mer mer mer ngeen bu déedéet Khalifa nag man man nag je ne leur dois rien sama rakk la je l'ai vu grandir et mûrir dans le parti jàmm laa ko yéene it parce que mu nekk président bu ma ma gënoon Macky ko. am mu laa gën a miin mu laa gën xaw ma man xaw ma makki xaw ma makki xaw ma jabaram gouvernement am xaw ma si kenn kenn xaw ma jóg jëkk sama téléphone woo la kenn laa si xawoon miin muy Aly Ngouille Ndiaye depuis dix ans déggatuma ko sax woowatuma ko nag joxoon sax numéro téléphone woowatuma ko man maa ngi sama kër yore sama course di xaar yàlla mais moo xam ne yàlla na yéex wante nan bàyyi ñoo def na il faut que nous soyons réalistes am les pieds sur terre xam li ñoo wax xam li ñoo def xam ne àddina du kër wax la ne dañ na du métier bu ko bu ko politique du nekkulee métier doom luy nekk métier am bureau am secrétaire am salaire am oto di xëy di wàcc wala lu métier loolu du métier loolu mooy métier mun na wax nag c'est métier son contrat à durée déterminée béchel benn yax mit parce que xale yi xale yi euh, doom da da du liir te fekkewu leen béchel benn yax dafa benn éditorial en 1965 dans Jeune Afrique ne la politique est un Autant on ne permet pas à un non-chirurgien de faire une opération chirurgicale. Autant on ne permet pas à celui qui n'a pas de permis de, permis conduire de conduire un autocar. Autant on ne doit pas mettre euh, la politique, l'industrie d'un pays entre des mains inexpertes. Parce que xam ne ko bind. ne la politique est un métier. waaw Moustapha Niasse amul métier. Tanor amul amuloon métier. Euh, Macky Sall amul métier. ñeent ah, mos a xëppal ko amul mécc da dem kay bi dem ba dugg si am am courage de déterminer euh, euh, bàyyi ba euh, cinquante métier la te it gars yi na fàttaliku ñu ñu noo waxal ñu ils sont de même école ñoo bokk fi ñu jàng bokk fi ñu génne nan bàyyi na politique métier la te politique politique du diine. diine mën nga nekk musulman ba sax nga nekk catholique nekk catholique nekk musulman ñu ñu xool xam naa ne wala politique andi intérêt la. Mm. politique andi intérêt rek la. foo gisatul sa bopp nga dem. waaw foo gisatul sa bopp nga dem. leer na. boo Macky Macky président bi laa bëgg. Macky dina am ay ministre mm-hmm. boo gis boo demee ba Macky dakkatul nga dem war na nga bañ wax du ñaaw nag mm-hmm. wante politique du du ngor mm-hmm. du diine. at fii la yem amul laaxira fii la yem lam Lamine Gueye Senghor Ablaye boo dugg si ñoom ñaar nduró yi ay sa ay ay ay bretelle waaw anam ñu tey Omar Gueye Omar Gueye ba ngay dëgg ministre mm-hmm. Amadou doom ju tëdd Idriss Seck ab doom jabar Idriss waaw tey tàggoo nag tàggoo ànd ànd politique boo mel noonu il faut pas le dramatiser loolu bu sa xew naka jekk du ma gune man nag macha allah tàggu sama sago te waxtu wax dama lay recevoir avec beaucoup de plaisir parce que li ma bëgg a wax li ma xam moo bari te awma fu ma ko waxee je suis le plus ancien actuellement du parti socialiste maa fi gën yàgg. Hmm, macha allah. macha allah Amity Ben Ndiaye xaw ma. Hmm. Hmm, musuma recevoir musuma ba mu nekk tey ba tey te ngay gii ma dëkk amul ben socialiste bu ñu am ba si tànk ñëw seet si ma amul gisuma kenn ñi may seet si ndéew sax mooy des gens ak ba des fois quelques étudiants année de thèse ñu yebal leen si man ñoom wax wax moo wax leen lu ñu xamul wala parti socialiste bii ma bokk gën fi yàgg maa fi gën yàgg nag ginnaaw ko la wax Massamba Niang yàlla ko yàlla may wér dafa feebar maa fi gën yàgg am naa samay jigéen yoo xam ne ñu ngi fi tey bu parti bi parti bi àggee fii tey ñooma ñu wax Adja Rose Ndiaye ma ma Cheikh Tamsir Sarr aju aju Ramatoulaye Guèye dëkk Wakaam nekkoon député Adja Ndeye Sylla jabari Daouda Sow la woon président de l'Assemblée sol ministre am na ku noo wax Ndeye Diagne Dëcc am na ku noo Sagar Djigo ñoo ñoo ngi fi ñoo am na ku noo wax aada njaay lii am na ku noo wax abi jaaj jabari kabiru mbóoj jekkoon na amitam dañ yaay woo décoré ñooñu ñoo demoon Pointe Sarène jekk na Caroline Faye yu du ko sall benn sall dres parti bi aram jéen leena fal jaañ ma leena fal jaañ ak ñeneen ñeneen seene bu siise ñooñu aji aji mat leen ngop ñooñu ñoo waroon dimbali doom loolu ma li ma lay wax nag it lii ma lay wax it fexeel ba xeex xeexal génneel ma ko parce que réew mi laay waxal parce que vraiment am yu jekkul mm. ñooñu Rose Ndiaye ñu ma léegi ñooñu boo àndee parti booba kenn parti ba dara amul arrêté mesure du parti bi ñoo wax ña fay siège actuellement kenn fekkiwu ko. ci Colobane. waaw kenn fekkiwu ko kenn def si dërëm. Hmm. doomu laaj nu mu demee. waaw naka lañ ko defaree falaa ji moom te. dañu xëy dañu def maison du parti. Hmm. woo bureau politique ñu ne sàmb gi dafa làmb ñu boole maam góor gi Njaay ak Robert Diouf si HLM jo dénk ko Basirou Diagne Marème ma Grand Serigne Dakar moo ko organisé ñu ne Kabirou Mbodj organisé Pikine benn làmb fàtte naa ñi bëre woon mu organisé làmb ñu ne Alioune Badara Mbengue organisé làmb Tëngéej mu organisé làmb Tëngéej ñu ne orga ñu ne organisé Ousmane Ngom xamuloo Ousmane Ngom de. déedéet mu moom secrétaire politique du parti maire de Thiès ma remplacé Senghor. Hmm. am na doom ju ñuy wax Léopold Ngom Léopold Ngom waaw Yacine Fall ko jur. dégg naa dégg naa nag xale bu baax la. kooku il a marqué le pays hmm. Ousmane Ngom moom. ñeenti làmb bii Pikine juróom hmm. bii Pikine bii Dakar. bii Pikine bii Tëngéej ñaar Gorée ñaar kees bu mujjee mbay Diagne ji mbay Diagne Diop moo ko bëree Robert Diouf xaalis boo leen dajale ak suñu def maison du parti. lii ci Colobane socialiste. maa la kenn demul si fekkewuñ ko. Hmm? déedéet bi Abdou Diouf nekk premier ministre xam ñaata la Macky am. 9 hmm. ans hmm? bi Moustapha Diagne directeur cabinet Senghor xam Macky lu mu am neuf ans bi Tallon nekk conseil spécial bu Senghor xam Macky lu mu seize ans waaw loolu te ñëw gouverne ak ñu maasee moom ñii moo leen mag lu nu mun wax si réew mi ak lu si xam dix-sept décembre ji bala ngeen nett di la wax yëpp du dëgg mook l'éclatement du Mali ñu bala ngeen nett di la wax yëpp du dëgg événement yi xew ñi ñu ne sofëri moo jàpp euh, Tamsir Ba amul Tamsir Ba colonel Tamsir Ba ko jàpp euh, Tamsir Ba moo jàpp moo jàpp euh, général Soumaré ñu ne wax dëgg dégg xale ñu naan Soumaré Bal jooju kenn xamul dara amu si keroog ba sa keroog ba ba doon Colobane Senghor la Dia wal jooju Ablaye Fofana Ablaye Fofana ma nettali yu noo jox si histoire yëpp amul danoo sos rek ak xel mu rafet. te xel mu rafet nag du histoire xel mu rafet nag borom xel mu rafet nag da mën a tax ku nekk parce que xel mu rafet musiba la te borom dara ji juy fen dafa jara moytu parce que lu ma wax ñu gëm ko loolu moom nañ ko moytu nan nan nan def les sur terre waxuñ ñëpp ànd ak Macky Sall mais Macky Sall il il a il est là pour sept ans cinq ans encore peut-être na ko nan liggéey nan opposé bàyyi ko mu liggéey bu cinq ans ñu wax peuple peuple parce que ñoom dañu for ñooy peuple bi te koo wax mu ne au nom du peuple léegi journal journal bi toog ci bureau di animé di wax ne ne diw ne nee na réew mi ne na au nom de qui il parle au nom de quel peuple il parle ah bu nu génnoon si bu ñëw stade Léopold Sédar 50 000 personnes ñu défilé kenn waxul seen tur kenn du leen xam mais ils ont un micro ils se cachent derrière le micro pour wax lu leen neex ak ak ak wa ak woyaan nag ak yelwaan am na animateur yoo xam ne dina war a dàq le journal parler les journaux parler de télévision et dara radio ne sont pas contrôlés heure day xam day xew léegi ñu ñu ko ñaari dat joxe ñaari tur personne rectifie te ah, histoire ku déglu histoire am na ku am na ku ne Latif Gueye Abdoulaye Gueye Cabaret ku jur wax déglu yóbbu na loolu te loo amul donc il faut la la xewoon si bu njëkk rajo Sénégal ku la wax Alioune Fall yàlla ko yàlla yokk leeram foo ko fekk dafa yor rajo bu amee erreur day wàññeeku ak fu mu toll mën na dem mos a dem ba Thiès am erreur moo wàññeeku ñu rectifié ko ñu dellu so ñu demaat ñu demaat loolu daal euh, ngoom ñu la gërëm di la sant di am mbégte parce que man sama xolay wax sama xol na te réew mi nag kër gu ma ko bëgg ñu bari ñu ma seen naa naa bind Cheikh Tidiane Sy Maktoum sama xarit la woon dafa ne Ousmane je suis un paresseux mais je suis pas un feignant man nag je à la par à la fois un feignant et fii ma fekk ma toog ci fii six mois ngi dugguma fi hmm. du ma génn sama néeg mag day toog ci biir déegam surtout bu wératee te man wéeru ma wante yàlla baax dana ku ma dégg may wax analyse yi may def su ma defee war daa doo ko gëm kon nag moom ñu ngi ma bañ jóob beneen laa ko mos a gis ma toog a Mansour ba di xaritam mu fekk ñu fa ndékki a nekk ko naw laa man nag wutu ba audience ku ma joxoon audience ne peux pas bouger kon wutu ba ku ma soxla fii nga may fekk sama kër laaj ba kenn audience it mais nekk ko foog la ko bàyyi xel la te nag il est sur le mu ngi liggéey te boolewu si coow waaye am sa rajo rek ak sa télévision foo ne yaa moom réew mi loolu neex wax lu neex def moom dalu ko kenn jéppiwu ko am na tey ba amoon référendum dañuy tëj télévision yu bari ak rajo yu parce que borom ils les ont utilisés à moom dalu ko nag li li it bëgg naa mu dégg ko te it da ko nag wutuma audience de ati te xaw ma mbañi xaw jóg mhm. vraiment mun naa ko buñ nag du ma du ma ñu daara mhm. daara la mënul wàññi waaye daal séeréer bi la bokk te am naa doom yu mu maaseel yoo xam ne kenn ndax lañ jàng it dañuy jàng ba ne ër samay doom yaa yaakaar na élection bi mënoon si réew mi kon lépp lu may wax mooy lu ma gëm lu ma gëmul kenn mu si dugal man nag maa ngi lay gërëm ngom ñaari yoon parce que ki ma booleeg yow mooy Ahmed Saloum Boy dama ko xam muy un un homme politique accompli am fulla am fayda nga seetu ko mu am lu mu xamul nee la ñëwal si man te wax na dëgg it kon amul kiyaan yàlla ko yàlla fu mu tëdd yàlla ko fa yàlla leer yi Seydina Muhammad fekk waaw ku baax a baax lu moom jox la ko nit ñi jabar ji dafa am joxe jaay dootu jabar ji sax mayee ko mm. il fait partie des fondateurs du MJPS yi ko créé si la bokk ba nga ko foontoo dafa bàyyi dem Badaam Odaar battre parti bi ku mus àddal gañ nga Badaam Odaar dafa am ñoo xam ne leur le parti leur doit su Khoresh Thiam si la bokk mm. parti ba war na ko teral ba mu ñëw ànd ak mag yi da ko siis te jarul siis am na fulla am na base am na njàng loolu daal euh, ngoom loolu laa amoon dama ko wax nag en vrac. baax na maam xanaa ñu dellusiwaat ci sujet bi rek ngir tëj mooy ba bombardement Dakar bi. Mm. gannaaw xew-xew boobu ban njeexital la am ci De ak ci France ndax France français moo doon xeex ak français euh, ban njeexital la am ci ñoom euh, seen wàllu politique surtout. xam nga. di Sénégal dul wax histoire dul ko wax xam nga Angleterre moo jiyee moo gën ak Amérique mu jiyee dugg ci guerre bi ak sax Union soviétique gën mu jiyee ñëw walla ku mel ne De Gaulle moo amul moo amul moo amul moo amul ba mu demee Londres def déclaration bi moo def lu tudd Karane dafa mobiliser français yi xaw ma dem nga France wala dem loo France wante boo demee si station métro yi léegi la ñu gis fi ay bàmmeel yu bare bare bare bare waaw si biir station métro yi am yoo xam fa ñu leen à Lyon den schaut das so allemand jaar si ay corps yi de milliers et de milliers de français et d'africains à Lyon bii ma lay dégg waaw boo demee Armanchel c'est dans le Calvados ba tey kano yaa nga fa ce que les Allemands ont fait aux Français et aux Polonais ce que les Américains ont fait aux Japonais Hiroshima yal na seen musal jàmm yal na boo film yaa ngi fi nag la Bombardier suñu kenn kenn ñemee di ko teg tellement c'est atroce ce qui s'est passé en France ba Allemagne yu bokk seen yu bokk français yi léegi kenn du teg ko teg kon nag yéen lii ngay def sa émission bii Demba Tey ñëpp ngay suivre nag dimanche mais c'est dommage y a trop de rajo des fois pour mu jàlle day jafe kon nag foo mujj daal mooy france ju bokk français yi dogal ñëw en cinquante huit par l'armée xam nga coup d'état moo di indi dogal dafa am ñeenti jeu de rôle Zeller Zeller ak Bichard quatre jeux de rôle ñoo def le coup d'état dans cinquante huit j'ai eu la chance nag d'être au début à Paris et à la fin à Dakar maa ngi dëkkoon hôtel bu lox Michel Odéon hôtel Odéon hôtel Odéon moo bokk théâtre de l'Union Diallo dans le dans le sixième arrondissement ci ginnaawam y jardin de Luxembourg le Sénat <coughs> boo génnee à gauche y a un restaurant spécialisé des fruits de mer devant le le palais le palais de l'Odéon la rue Racine boo jaaree Rias dem sixième arrondissement boo daalee gauche dem métro Odéon hôtel euh, restaurant Odéon foofu toutes les manifestations qui ont lieu au théâtre de l'Odéon fekk naa ko début mai ma jóge fa bii mai fekk fi la même rébellion keroog bi général Alfred Diallo Jean Alfred Diallo jël si Senghor au palais hélicoptère bi garé si jardin palais bi Clédor Sall nekk si biir gouverneur de la région de Dakar Senghor wàccee dugg hélicoptère bi ndaaw général Diallo jiwal Sicap Médina naa ko wéetoo parti béytoon partout regarde ça brûle ça brûle ça brûle ba mu dellu see Senghor dellu si woo Kabou Dayel ministre conseil ministre secrétaire du gouvernement ne ko waxal gouverneur yi képp ku ànd ak parti bi na ñëw Dakar Kaolack Thiès Louga ñooñu la ñu woo Diourbel ñooñu ñeent la woo bu jógee Mbour moo jëkk a ñëw egsi ñu yóbbu leen maison du parti keroog mburu amul mburu amul si Sénégal Dakar yépp ñu ñoo jënd mburu yépp ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu nag maa leen teeru man ak jam jaajo pour les orienter parti fay ma fay ma fay ma sama liggéey de booba ñuy wax ñu ànd ñu juddoowuñu sax am yoo xam ne mag seen bàyyi la woon nag waaw man mii la Senghor yebal par leen ci benn Racine Ndiaye ma wañ ñu dem jëm ñaaju wañ tootu dem yoonam bàyyi ma fa ku dugg Sénégal ku dugg jóge Diourbel jóge jóge Thiès jóge Kaolack maa demal maison du parti loolu moo xewoon parti am xool bu njëkk nag day sous section am section am coordination am union régionale conseil national am comité central am bureau politique lu amatul léegi si parti bi comité amatul chaque quartier avait comité chaque quartier avait comité chaque ensemble de comité un une sous-section chaque quartier am section léegi dara amatul lu xëy di coow rek ku mu nekk xëy parti trois cent cinquante parti <laughs> jërëjëf seen Ngom ñu ngi lay gërëm bu baax mbégte la itam ci ñun saa su ne di sekk waxtaan ak yow. di la itam gërëm ci considération bi nga ñu jox ndax yaram wi naqari na mag dikk na waaye wax dëgg yàlla heure bu nu soxlaa xam dara ci démb nga ubbil nu say bunt loolu itam. lii may eh, dund mbégte la boo may dundal. <laughs> jërëjëf bien au contraire da may dundal seen da nga may yal na yàlla fay. jërëjëf kon mbokk yi démb ak tey la woon ñu seet si woon sunu maam Ousmane Sène Blay eh, fii ci Tëngéej ci doon waxtaanee bombardement bi amoon Dakar 23 septembre eh, ci atum 1940 mu fekkee woon ko itam ak la ko ci mag ña nga xam ni ñoo gënoon a xëy na gimmeeku jamono jooja eh, xamal ñu dikk itam ci démb tolluwaay réew mi surtout ci wàllu politique gërëm ñi doon déglu gërëm jaawu jàllo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm